ko ñëpp defal leen ko yéen itam di nuyu sa PDG sama xarit la Baye Daam suma xarit la Birahim Touré mu Mouhamadou Mansour foofu dama fa bokk ak ñeneen ñi a nga fa ak ñeneen ak ñeneen yàlla na yàlla dolli jàmm et puis dara jomb ko te léppay baax incha allah. ak ki nga xamante ni moom mooy Bousse Ketchup waaye Bousse lan la ah Bousse am lu nekk ci loxo bi Bousse jàllale na ko ci yàlla li mu bëggoon def na ko xëpp na ko ci yàlla Ziza yi puudar la rek. puudar la rek mbokk yi diggante Bousse ak Ziza. diggante Boucher ak Ziza diggante Boucher ak Ziza arbitre bi sifflé na Boucher Ziza Ziza moo ñu wan ginnaaw Boucher Ketchup Boucher Ketchup mbokkum nday Birane Ndour doomi yaayu kii num da sax Ousmane Sakkal Dieng buuse mu Ousmane Sakkal Dieng mooy bëre moom ak Ziza diggante buuse Ziza Ziza ngi jat suba Juufi production moo fi woote Juufi production oh kenn du moom Ziza Ziza ak Bousse Ketchup Ziza ak Bousse Ketchup bàyyil arbitre bi eh way Samba laa ilaha illallah Bousse nee na du ma arrière benn yoon laa ilaha yoon Ziza mbokk yi ci Leral TV Ziza wàcc na ba tolloog moom booy xool Ziza moo prolonge arbitre bàyyi leen rek ñoo ngi léewtoo Ziza pël bu rafet bàyyi nga ma nag dang Buse Ketchup Ziza Buse Ketchup Ziza Buse Ketchup Ziza Mbuuse Ketchup Ziza congo amagul lay bu deef maa ngi lay nuyu suma xarit la li la ñaanal jàmm ci réew mi li la ñaanal jàmm fa nga ne Seydi Ami Badiane Ziza méb na mais demul Ziza da nga rek mais demoo Ziza da nga méb mais demoo Ziza Boucher Ketchup yéen ñaar il fallait que kenn jël ci ay responsabilité am bëre bëre bi mu jeex madame Senghor sa États-Unis maa ngi lay nuyu yaayi naa bu ndaw maa ngi lay nuyu sa États-Unis jigéen ju mën góor Ziza Boucher Ketchup attention Ziza na def ndànk bu yeboo na jël temps buuse na jël sa temps buuse yow it jëlee sa temps Ziza door na mais dalul buuse ree na ko Ziza buuse avertissement Ziza ñaar buuse Ziza buuse Ketchup bu yàggee mu jeex de. Buuse nga wax loo Buuse nga koy wax loo Buuse Buuse Ketchup Ziza waaye Jufi production de xale boo xam si ni kenn du moom waaye Jufi waayi lamb ji yàlla ak jàmm suba waaw waaw Ziza Ziza. bu doon maa yow damay wane sama bopp Ziza Yirim laa àndal tey moom laa àndal tey ci arène nationale Yirim Ziza bëgg na tibb Siteu bu ngay yëngal ci ginnaaw Ziza Buuse Buuse Ziza déplacement Ziza day dóor mais dara dalu ci mais Ziza dóor yi ngay door da koy door ci ngelaw li rek temps bi jeex na. arbitre bi sonn na ci combat bi non dégg ma Ziza Alioune Seye Junior Ziza Bousse Ketchup Ziza bu toppee dóor mbaa mënut a juyoo juyoo mënut a. Eh, Fallou ziar waaw mais Ziza nag daa mel ni dóor la mën am pour am buntu parce que boo seetloo si dafa mel ni moo ko xaw a gën a diis kon ponkal nag poids lourd ko mën a dóor wàññi ko rek ngir mën a am dara. mais buñ songawee nii nii Bousse mën am avantage parce que Bousse telewul bëre te diis na te dafa mel ni ni gis nii jërëjëf loolu am na solo diggante Ziza a ki nga xam ne mooy Boucher Ketchup Ziza jàpp na ci ngemb moo ngi koy bëgg a génnee puus mu génn mais Boucher bañ na. Ziza dafa mel ne ko bëgg a pousse mu génn pour am avertissement bi. waaw parce que loolu aussi comme lamb la rek foog utiliser ay ruse xam nga pour mun ci génn parce que sport de combat la buy refléter bra bravoure mais aussi day refléter ruse maanaam nga utiliser sa xel pour mën si génn parce que nekkul ne kut ko kut rek da nga a daan ndam la ñu ndam moom ci sport noo ko amee baax na. jërëjëf kookoy Boucar di xale boo xamante ni dafa xarañ ci lamb bëgg lamb di topp lamb fu di tëgg tamit ay mbapat fële sa dëkk ba seen dëkk nu mu tudd. Jaxaaw Siin. Jaxaaw Siin. waaw dëkk Buur Siin dëkk Buur Siin. dëkk Buur Siin. dëkk Kumando Fen. waaw Kumando Fen Kumando Fen Diouf. Diouf waaw. <laughs> Ana Matar. Matar mu ngi fi moo xam ministre des sports sa papa xarit la aussi ñu bokk dëkk Jaxaaw Siin mu juddoo fa yeroo fa mag. yëngal li xew ci dëkk bi suba defee fa lépp suba. waaw li xew ci dëkk bi yëngoo ko. waaw am na lu ma si yëg. am nga loo ci yëg waaw tegal foofu sa baaraam waaw ñu teg foofu suñu baaraam eh waay Samba saa xeex la Boucher Ketchup Ziza Boucher Ketchup Ziza buse Ketchup Ziza mais attention Boucher Ketchup mbër la Boucher Ketchup Ziza waaw Boucher ngay dongali laa ilaaha illallaah Boucher ngay doomu ndey sëñ Mbacke Diop Ziza ni ngay xeexee baaxul changement de pied mais Ziza ay waa këram d'accord ñu de Ziza ay waa këram nanguwuñ ci ni muy bëree Ziza Ziza Alioune Seye suñ Ziza Boucher Ketchup Ziza Boucher Ketchup ba ñuy bëriwaat Boucher day am avertissement poussé Ketchup Ziza poussé Ketchup Ziza poussé Ketchup Ziza Ziza moo ñëwoon ginnaaw poussé Ketchup la ñu jàkkaar lool mais Ziza mënu ci poussé dara mais Ziza mi ma gis ni bu si bouché dara de. arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom Boucher Ketchup Ziza Boucher waaw Ziza day door day door a pare arrière. arrière waaw looloo looloo looloo waral arbitre di ko jox avertissement parce que arbitre arrière dafa bokk ci li ñuy woowee passivité te passivité c'est sous peine d'avertissement moo tax boo dooree war arrière Ziza da nga gis moo tax ko ba ñu moom mu boo dooree. waaw da nga war a song arbitre bi sifflé na temps bi jeex na. mais normalement la ñu jox baax na mais Bousse am na lu mu wax. kaay kaay buuse. jàpp na ñaar buuse lan lan lan.